abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci ahlan bikum bés bi ñu jagleel liggéeykat yi feetu premier mai niki démb lañu ko doon seen xamal syndicat patronal liggéeykatu Sénégal yi xeggee neen seeni jafe-jafe njiit réew mi Macky Sall ba pare sàkku ci moom mu yokkal leen salaire yi si Sud Quotidien moo ñu ko xamal les si ko yéene kaay dëggal ko waaye nag fale na tontu wax leen lu leer naññ moom njiit réew mi Macky sàll mooy na salaire yi mënatuñ koo yokk dund gu cher gi nag li ci nguur gi def xoromam Le Soleil yéen kaay dëggal ko na ko ci ñaari at lu jege junne ak ñaar téeméeri milliards dugal nga ko ngir wàññi dund gu cher gi mu nekk jéego yu mag feneen fu xam jéego yu mag mooy Senelec yàlla ak njiit la Pape Demba bi tey lu fa mësta am moo fa am ren ci feetu premier mai bi mooy ne syndicaliste ya patronat ba travailleurs yi ñoom ñëpp àndandoor feetondoor premier mai lii yéen a kaay moo ñu ko xamal la dépêche yéen kaay na liggéeykatu mairie bi seeni jafe-jafe yeggee nañ ko maire leen a épinglé de ndax fa am ab écart bu yaatu ci dépense budgétaire bi nay leer laneen lu leer ba yegg ca nàññ ja mooy ne Ousmane Sonko fa doon xamal janok taskatu xibaar yi ni ki démb waaye mboolem loo xam ne xàqam la ak ay yelleefal jaay doole bu ko justice réewum Sénégal def fa ko wax benn par benn yor yor yéene kaay mel ni ku naan wallaay fa nga koy yërëm sa yaram fay daw te lépp lu mu wax fa caa joxe ay firnde dàq nañ ma sama place liggéey kaay def nañ ma lii ci wàllu yoon def nañ ma laa xañ nañ ma lii la ca gën a daw yaram nag nee na waaye man mbooleem porte plainte bu ma def yoon fay sëgg du ci wax dara duñ ma sax faale te ganaar sax su jógee na Sonko ma def lii yoon dal ci sama kaw moo tax fa xoo patriote yi ci ñàkk a nangu ak nooteel ci wàllu yoon léeg si ko yéene kaay ne ba mu paree foofu fa wax ci dialogue politique bi njiitire Macky Sall wootee nee na dara taxut mu woote ko moom Macky lu dul bëgg a lewal ñetteelu mandaam bi fa bëgg a bokk ci wote 2024 yi te waru cee bokk ba pare nag nee na fañ a beddi ci ku jégi nee na mas ngaa gis kaay ñu waxtaan ba tax demuñ wuy benn dialogue boo xam ne pour la te moom njiitire moo dox kon luñ fiy dialogue beneen bi ci topp def nañ fi ñaari jalo problème yi ñu war a waxtaan yépp waxoon nañ ko fa tënk ko jox ko njiit réew mi fa bañ ne du ko jëfee moo xam parrainage bi ak soppi code électoral bi loolu kenn na def décret bi rek ñu ne déetawaay Ousmane Sonko wax na démb tamit ne analyse yañ yóbboon bitim réew bokk na ca France ci ab laboratoire dëggal na ne fañ maa bëggoon a faat sama bakkan bi keroog bi ma takk der yi bëggee yóbbu tribunal ca ba maa ngi toog ci wetu Guy Marius fa lañ ma pompé te vidéo yi ñëpp ko loola ñu ma pomp nag labo ba nay ko sotti fay ray nit te may wax yéen maa ngi yëg lu doy waar ci wér-gi-yaram les su ko yéene kaay na sonko kay wane na firnde ya de Mame Mbaye Niang ci critique yéene kaay na ko bëgg bañ li yoon santaane moom fa nga koy jëfe yow sonko laay waxal sonko na ko yow moom fa ngay xaar soo yaakaare ma fay la ay deux nga fori neew de fukki dërëm du la ko jox ndax fa ngay gént l'observateur na ko li nekkut ay gént nag mooy mbiru aji saar yi yow Sonko le 16 mai fa ngay wuy ji te bés ba ko jiitu muy le 15 fa ngaa war a yoon maa ngi ni na plainte Frédéric Nappel bi tamit nee na mafia d'état la ci kaw maanaam Afrique caaxaan-caaxaan la leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne dialogue bi njiit réew Macky Sall woote tasaare na opposition bi ku jégi source a yéen kaay ñu ko xamal fale na tas junney pàcc ah Khalifa Sall nee na man faay bokk te dialogue fay xam par force man ko waxee ci bés bi yéen kaay ci Vox Populi moom Khalifa Sall nee na man daal naa bokk ci wote 2024 rek ak nu ma mën a bokkee fañ may amnistie fañuy jaar ci modifier man daal a bokk te naa bokk rek Ousmane Sonko mel ni tontu ci Vox na ko man d'accord naa nga waaye amnistie bi baaxut ci yow te mën nañ cee dugalaale ñeneen ñoo xam ne fa ñu lubal alalu réew mi ëllëg kenn du leen mën a topp li gën a yomb kay mooy décret assemblée nationale loi ba ñuy wax nañ soppi code électoral bi nañ ko wote rek mu jeex su ko defee fa ngay mën a bokk Karim ak ñëpp bokk jàmm na ñooy waaye bu ngeen dee wuy ji dialogue bii mooy ne fa ngeen a bëgg ñu faagaagal ma de isolement Mimi Touré ci info yéene kaay mel ni ku naan ko Sonko maa yow a Karim Wade mu bokk ci wote yi te njiitëram Macky Sall li tax muy woote dialogue bi dara taxut lu mooy fa bëgg rek nekk candidat 2024 le quotidien na F24 ñoom neneen fa ñuy bokk waaye nag ci kaw Macky moom du bokk 2024 Malick Gakou parti nee ñoom it bokkuñ ci dialogue bi leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne waa mouvement rahma rawatina soxna ya fa ñoo dóor ca taabal ba artu njiitëram Macky Sall na ko fa ñoo bëgg nga fal Mouhamed Ndiaye rahma poste bu mu yelloog ndax lam lay liggéeyal Kaolack kenn defu ko fa doy na yu leer naññ ba tax poste la laaj ma nga ca laas yéen a kaay ñeneen ñuy laaj poste njiitëram Macky Sall mooy responsable benn bokk yaakaar ya nekk ca commune bu Diossong maire Diossong Mamadou Touré ak Mbaye Lo ak yeneen responsable yépp fa ñoo joxante loxo waaye tamit fa ñoo mer ba futtu jëmale ci njiitëram Macky Sall ndax bu élection jotee ndam la mu fay xam moom Macky du ko am ca département ba te benn ndoom ba tànk joxuñ leen ko du xëy ndaw yi di financement soxna ya cinq millions yeleen Ndeye Saly Diop Dieng digoon ca xatam ñetti ba tey maire Diossong fa ñaawlu doxalinu Moustapha Mbaye président conseil départemental bu Foundiougne nee na du dara lam fa nekkee daal mooy jël ndaw jaagaan barke di leen fal maanaam ci boppam rek la ne ña ngay averti far ba Ngom ndax ñeen fukki tonn ceeb yam leen jox ca département ba joxuñ ca Jooson la des fa ko lekk ña ngay artu njiit réew Sall ne wote yi di ñëw benn bokk yaakaar fa nar a ñàkk Jooson te ñoom sax boo moytuut fa ñu bàyyi benn bokk yaakaar l'évidence yéen kaay ñu ko xamal man ma jël enquête yéen kaay fekk fa génn àdduna journaliste bu mag ba ñuy wax Mame Less Camara seede yu daw yaram ak taxawaayam bu mucc ayib ci wàllu taskatu xibaar ma nga ca biir yéen kaay ba sesti fi mu toll nii turu Mame moom la ko njiit réew Macky Sall jox jox kàddu si di Ahmed Mbaye mooy l'observateur lam laale ca mbiru Sonko ak Adji Sarr ak secret yi nga xam ne ma ngi ko garde ay mbóot yu garaaw léppañ ca biir yéen kaay ba li garaaw dëgg nag mooy jàngoro jooju nga xam ne moom la ñu wax crime Congo xam ne fay rey xam na kum rayagum Sénégal hôpital dalal jàmm géejawaay waaye yéen kaay bi ne na fa mu dëkk ak fa mu jaar ak diggante Jurbel ak Kaffrine ak yëpp kilifa yi topp nañ ko ngir saytu leen ndax wàll na leen ko ba tey benn soxna fekk ko ca xàll ba ne yoo yaay fa koy siif tëdd ak moom waaye xam nga nan la soxna sa jàpp ca tubóoyu waaja langaamu ca mama turée rek bés rek waaja yuux ndaw say bës rek ba mu koy baxak ma nga ca diggante dund ak dee yëf yaa nga amee ca orka jére <laughs> waa ma ne taray bien xam nga maa leen xaaye woon yéen soxna yi ne foofu bu leen koy jàpp baaxut mën naa ray nit waaye kuñ ci bëgg a wiyole siif jàppal rek langaamu <tsk> ragal naa ne de waaja dana tal leneen lu may tëddee la fay raye du caaxaan de ndax métit ba foo ko natt weesu na ko